jaajëfal leen bu baax a baax tey di rafetlu seen ànd ak euh, rajo Rewmi FM vendredi bu waxtu wi jotee ngeen di baaxoo di teewlu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé am mbégte ak bànneex di daral ki nga xamante ne moom moo di Souleymane Diop moom Souleymane Diop mu nekk euh, trésorier foofu ci association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose drépanocytose nag ñu daal di koy jagleel benn bëccëg euh, moom moo di ne samedi bi ñu samedi donc la ñuy màggal euh, boobule jàngoro Souleymane Diop ñu ngi lay wax euh, dalal ak jàmm waaye tamit di rafet lu nangu bi nga nangu wuyu tey si suñu invitation bi. waaw maa ngi leen di rafetlu invitation bi di ñaan yàlla lépp luñ fi wax rek mu nekk njëriñ pour euh, maladie drépanocytaire yëpp ak ñi nga xamante ne ñooy seen waajur nga xam na dañu sonn ci seen doom. Mhm. merci beaucoup Souleymane euh, bu ñu waxee association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose tey jii boobule kuréel euh, kañ ngeen ko taxawal ak itamit euh, ci yan anam ngeen ko taxawalee. waaw association bi ñoo ngi ko taxawal en 2003. Mm-hmm. si lañ ko taxawal ndax gisoon nañ ne xam naa sax day nekk prolongation si sa question bi li tax ñu taxawal ko mooy que ne gis nañ ne problème yi am si drépano mu nekk feebar boo xam ne ñu bari dañ ko wuute xamuñu ko ndax euh, da nga daan jor sa doom mu feebar doo xam fooy jaar pour am information bu baax kon te dafa am ay signes yoo xamante ne traditionnellement ku ko mës a am si suñu société nit ñi dañ lay naan da nga nga dem di seeti leneen loo xamante ne nekkul moo war a faj feebar bi. Mhm. léegi bu formé association bi en 2003 pour ñu mën a sensibiliser ñi nga xamante ne ñooy malades yi ak euh, parents malades yi pour jëm leen orienté mu nekk tamit euh, moment bo tout tout association bi nekk tribune boo xamante ne day nekk benn genre. wax dagale suñuy euh, xalaat euh, suñuy euh, expérience yi ñu jot a dund si feebar bi pour ñi nga xamante ne c'est des décideurs politiques ñu mën a déglu mën a xam gën a tamit dëggal jéego yi pour maladie bi souffrance bi si nekk gën a wàññeeku waaw association boobu tey naka la ñuy def ngir adhérer ci waaw pour adhérer si lu yombala la ndax du association de malade mais mhm. association la boo xamante ne malade bi parent de malade bi accompagnant bi ñëpp ñoo xamante ne sax c'est des simples sympathisants sax mën nañ si bokk donc il nga jënd benn carte de membre pour mille cinq cent di ñëw suñuy réunion yi nga xamante ne mensuel na siège bi moo ngi nekk euh, centre transfusion sanguin sinon ñi nga xamante ne si yeneen régions yi lañ nekk am na ay cellules régionales yoo xamante ne implanté nañ ko dajagul nag ndax euh, découpage bu bees bi foog mu am ay failles yoo xamante ne day kii mais ñoo ngi si ba léegi ndax euh, du yàgg léegi rek dinañ installé yenn cellules si yeneen régions yi. Mm-hmm. ndax je ndorteel ba euh, adhéré bi yomboon na d'autant plus que si say explication yaa ngi wax ne nit dina am doom mu am drépano mais dafay jàpp ne dafay am payis wala am na ñoo xamante ne sax yenn saa ñu jàpp ne dafa am ay feebar yoo xamante ne ay feebar yoo xamante ne ay rab wala ay jinne ndax yomboon na ngeen convaincre nit yi. waaw en fait euh, da dem yomb parce que nit su ko su doomam euh, daree dal ko te xamul lu ko lu ko dal. Mhm. am koo xamante ne yàlla euh, am na lu mu ko si may pour mën la orienter. automatiquement kooku da ngay ñëw approché wu si moom mooy comme li ma wax si njëlbeen rek mhm. koo xamante ne dafa feebar bët yi di jaune ñu nekk ko ñun fii suñu société say bët su jaune dañuy naan danga nga wala bu fekkee ne da ngay tuur ndox ndox mi jaune tamit ñu ne da nga pays bu fekkee ne lu mel ni li nga xamante ne xale yi nu muy feeñoo si moom ñu koy wax euh, syndrome PMA sa tànk yi di neew yi ak sa loxo yi ñu yóbbu la si aw say ñu lay defal ay gajj nan laan ay euh, dret bu bon la ñuy dindi xam nga yooyu day soo amul ku la orienté soo gisee kooku nag mu ñëw teew na la lii su amee lii fii nga war a jublu kon kooku da nga siy gën a sawar uh-huh. léegi nag euh, pour information bi tasoon lu xawoon jafe la parce que les moyens na suivaient pas tamit euh, ak euh, commencement doo xam orientation bi nan la mën a nan nga koy mën a tax taxawalee mais de fur et à mesure nit ñi ñoo ngi ñoo ngi déglu comme tey jii nii émission bii may def bokk na si li nga xamante ne tey am na ñoo xamante ne suñ ko déggee dinañ jéem a ñëw jege si association bi xool nan lañu na association bi di doxee ak tamit tam suñu amee feebar kii seen doom su feebaree am crise drépanocytaire fan lañ ko war a mën a orienté kon loolu déjà lii avan avancé la mhm. te biñ koy door a formé du ma ne amul woon mais bariwul woon mhm. waaw mhm. ngeen euh, créé ko ci atum 2003 euh, certainement boobu Dakar rek la yemoon certainement 2003 2021 élargir ngeen ko euh, ba fi nga xamante ne moom moo di ci ci ci région yi ñu bëggoon xam rek ndax région yëpp daj na waaw maa ngi koy wax sànq si sama cadre na la raison yëpp dajagut mhm. ndax tamit euh, du liggéey boo xamante ne bu yomb la mais heureusement ñi nga xamante ne ñoo seq association bi yëpp euh, commencé ko par le président Magaye Ndiaye mhm. euh, ku si nekk yaa ngi jéem a seet nan ngay def ba affaire yi avancé ak suñuy partenaire léegi nag ren daaw le la lañu la ñu demul woon si région yi ndax daaw ñëpp ñoo bokk même euh, coono bi leen dal ndax euh, jàmbat bi benn la li fi jaar mbas mi di ñaan yàlla mu jëlee ko fi ndax avant daaw daaw géej ca ñoo ngi woon fu mel ni Mbour daawaati géej ca ñoo ngi woon fu mel ni Saint-Louis kon ça veut dire que ñoo ngi jéem a essayer décentraliser pour euh, raison yëpp si journée yi ñu ko daan def si yeneen régions yi parce que tëbuñu tëb rek def ko si yeneen régions yi ndax régions yi daf fekkoon ñu implanté fa ay cellules. waaw cellules yooyu tamit euh, ñu am seen autonomie bopp di organiser wu di seet euh, ñoom it seen problème nan lay euh, nan la fa demee ah tamit ñu problème yëpp ñu jël leen centraliser leen si association nationale bi après ñu seet nan la ñuy jéem a résoudre problème yi. Mhm. waaw mhm. Euh, ku wax association wax nga ko am na ay partenaires am na ay bon volonté ñu bëggoon rek euh, xam ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo di les partenaires euh, ci ban anam la ñuy ñëw doolele wala jàppale association bi ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum drépanocytose. waaw partenaires yi moom. mën nañ wax ne am na bari na wala bariwul. Uh-huh. tey am na si ñoo xamante ne tey euh, suñu ay médecin lañu di nga xamante ne ñooy faj xale yi wala mag ñi ñooñu man considéré nañ leen ay partenaire uh-huh. ndax si euh, ni ñuy doxalee partenaires yi tamit mën nañ si nommé tamit ñu mel ni fondation Manako ak Pierre Fabre. lu mel ni tamit euh, ay bonne volonté yoo xamante ne tey mënuma leen lister mais teewul loolu yëpp du tax euh, affaire yi doy ndax gën na compliqué loolu mm-hmm. xam naa du ñàkk si biir émission bi suñ si suñ si gënee xuus euh, mm-hmm. di nga am partenaire xeebuñu leen mais mm-hmm. bañoon ko am dina woon gën a metti mais teewul euh, ba léegi mënagul relever défi bi nga xamante ne moo ngi si feebar bi waaw Euh, taxaw wax ci li nga xamante ne moom moo di feebar bii di drépanocytose mu am ñaar yoo xamante ne moo ci gën a fës muy AAS ak SS tey ji seen kuréel euh, bu ngeen jiital boo ñu doon defal xayma euh, yan yan yan type ngeen di gën a gën a gën a farataal di di di dajale. waaw AS ak SS. Mm-hmm. d'habitude AS ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nekk di faj. feebar bi ñoom dañu jàpp ne AS du feebar mm-hmm. mais si loolu chaque jour ñu gis ay AS yoo xamante ne dañuy jàmbat bon dem nañ si ba tenir si en compte di leen bàyyee xel mais teewul ba léegi considéré wu leen comme ay malade mm-hmm. mais c'est des porteurs mais SS yi nga xamante ne ñoom lañu ñu comme ay malade nga xamante ne yenn complication yëpp si ñoom euh, lay nekk ñooñu tamit euh, taux mais suñu boolee taux bi yëpp euh, dix pour cent la. si ah. population Sénégal dix pour cent nag euh, du lu ndaw. tey soo ko dem calculer ci population Sénégal dina nekk ay deux millions quatre cent je ne suis pas fort en chiffre peut-être xëy na yow di nga ma ci mën nombre d'habitants bu millions. Ah. kon dix pour cent je crois que ne su falee président Sénégal. tamit xam naa si at yii la mais dix pour cent musul fal population Sénégal deux uh-huh. le président du Sénégal kon uh-huh. nombre la boo xamante ne nit ñi waroon nañ si bàyyi xel euh, gën a def ay effort euh, pour euh, jàppale ñi nga xamante ne c'est des drépanocytaires uh-huh. jàppale tamit ñi nga xamante c'est des parents drépanocytaires na trop trop trop trop ku ko dundul euh, su dundul mënula ko expliquer ñi koy dund sax tellement que dañu tàmm méthode bi ba lay expliquer dina am lu ñu bàyyi mm-hmm. ndax euh, koo xamante ne bi nga juddoo ba léegi yaa ngi ci yooyu kooku mënul si su lay wax mënul tëb tëb rek wax la lépp. Mhm. Mhm. Euh, euh, dañuy des ci ci ci ci ci ci ci ñaari type yu feebar yi. yaa ngi koy wax euh, ku am AS dañuy jàpp ne certainement maladi bi taxul a gagné noonu ndax porte porteur nga tey jii loolu faille de communication la wala la wala sensibilisation bi moo des ndax feebar moom amaana ma feebar rek lay nekk. non non c'est que du faille de communication tamit ku nekk da jox. jox li mu moom menuisier bi jox ko li mu moom maçon bi nga jox ko li mu moom mhm. mais scientifique bi tamit bàyyi kaax li mu moom mhm. ñoom peut-être si seeni gëstu seeni recherche gisaguñu lu tax ñu mën a considérer ne AS feebar la mhm. mais si biir loolu tamit nag gis nañu AS yi yenn problème yu ñu am yenn jàmbat yu ñu am ñoo ngi leen di du soo ñëwee consultation duñ la delloo dinañ la déglu wax la bu fekkee ne dañ la war a jox garab ñu jox la garab ñoo ngi si duñ la bàyyi ubbil la dossier s'il le faut mais ñi nga xamante ne ñoom la ñu gën a bàyyi xel muy SS yi te effectivement SS yi ñoom ñooy gën a am ay problème si phase boobu la ñu wax mais ça ne veut pas dire que ne problème de communication la ay recherche la yoo xamante ne ñoo ngi si tey am na koo xamante bi bi ñuy door door si loolu c'était automatique AS considéré wu ñu ko kon feebar kon suñu demee ba ñu si bàyyi xel kon kooku avancé la mm-hmm. tey jii ñu wax ci feebar bi yaa ngi koy wax sànq am na ay signes annonciateurs mais ñu ci bëri dañuy jàpp ne du du du du feebaru drépano tey jii yow mi nga xamante ne yow yaa bokk ci kuréel bi di association euh, sénégalaise de lutte contre la drépanocytose boo ñu doon wax rek signes annonciateurs yi lan nga ñu ci mën a wax lu gën a flippant. waaw xam nga si annonciateur yi comme li ma la wax si yi nga xamante ne si xale yi la. Mm-hmm. am na lu ñuy woowee les syndromes PME muy tànk yu neewi mm-hmm. ak loxo yu neewi kooku d'habitude ñun si suñu société suñ ko gisee si xale dañuy jàpp ay seytaane ko dugg wala leneen yóbbu ko si suñu parents aw say mm-hmm. ñu def ko ay kii pour gàjjo ko xott yi génn ne dañuy génn deret bu bon bi xam nga yooyu ñàkk xam moo koy indi am beneen signe boo xamante ne ki nga xamante ne bët yi dafay mbox mooy dafay jaune kooku tamit euh, ñu gis ne tamit euh, diggu ginnaaw gi di metti tout le temps tamit euh, su demee tuur ndox ndox mi tamit euh, nekk lu yooyu tamit ñu naan laan da nga pays yooyu ay ay ay signe la yoo xamante ne nit ñi daan nañ ko jàppee ay feebaru pays mu nekkoon ay problème parce que ki nga xamante ne li ka li ka li ka dal fajoo ko si lool di seet leneen di ka faj sa kooku ça veut dire que yaa ngi koy lor. dañ koy yi dafa am benn problème bu nekk si ñoom mooy infection da leen yomb. Mhm. kon loolu lépp loo xamante ne dafay favoriser infection yi mooy nga jël traitement boo xamante ne bokkul ak moom li mu war a jël moo taxoon euh, mu daan am ay complications yu baree bari bari bari bari bari tey ñoo ngi avancé xale yi mën nañ dem Albert Royer di fa fajoo mag ñi mën nañ dem euh, fu mel ni centre transfusion sange Albert Royer sànq yaa ngi wax waxu partenariat. Mm-hmm. unité bi fa nekk nga xamante ne ay partenaires ñoo ko tabax bokk ñi nga xamante ne tey ku mel ni professeur Diagne nga xamante ne moo bind projet bi dox si wax si ak euh, association bi par le biais de Magaye Ndiaye yooyu dafay nekk yoo xamante ne yu yu yu am solo la yoo xamante ne tey mën nañ wax ne benn pas la doon ko ne ndax amul woon kon suñu gisee loolu di xel dina xaw a dal mais li des euh, bari na trop. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. li des euh, bari na trop association bi am euh, pour objectif euh, li nga xamante ne moom moo di informer ak sensibiliser tey jii ndax jàpp nga ne sensibilisation bi doy na ndax dafa mel ni bu weesoo bëccëg bu ngi leen jagleel amu leen yeneen activité ndax il arrive que au cours des mois wala ay jours ngeen def ay séance de sensibilisation def porte à porte comment est-ce que vous organisez-vous au niveau de l'association pour gën ñaax askan wi ñu xam xamante boobu la jàngoro ak euh, jafe-jafe yu mu mën a duural doomu aadama bi. waaw merci beaucoup xam nga tey jii nii soo xoolee li indi tey journée mondiale dafa am fu mu commencé. te loolu fu mu commencé mooy si au niveau des association mais tamit euh, l'époque avec. Euh, la première dame madame Wade waaw mu nekk occasion waaw madame Viviane Wade occasion pour ñu remercier ko si moom ak yeneen première dame yoo xamante ne ñooy woon si sous région bi madame hmm, Sassou Nguesso si j'ai oui madame du Congo si je ne trompe pas Gabon avec euh, kii laa la dame la comment elle se nomme encore fàtte naa turam peut-être après yow di nga ma kii mm-hmm. mu nekk ay première dame yoo xamante ne tey dañu porté woon le ba au niveau de l'OMS mm-hmm. waaw bi ñu demee nag euh, ñoom OMS lu mu leen njëkk a tontu mooy yéen lan ngeen def d'accord bon ñoom it ñu xamante ne tamit euh, sooy xeexi te amoo benn arme dafay nekk problème si lay ñëw ñoom it def benn tapage médiatique de gauche à droite si lañ créé journée africaine de lutte contre la drépanocytose muy le 10 mai. Mhm. si lañ am mu nekk benn journée d'abord après OMS dem ba reconnaître feebar bi comme priorité mondiale ba nga xamante ne léegi bokk na ci calendrier am mu jël journée 19 juin jël ko mu nekk. joo xamante ne journée drépanocytaire la àdduna ko wërngal képp ñu koy waxtaane kon loolu kii la nu mu tëddi ak la benn instant au moins si trois cent soixante cinq jours yi am na si deux jours yoo xamante ne dinañ def benn tapage médiatique ko wax de gauche à droite même ñi nga xamante ne woon bëgguñu woon dégg sax wala suñu déggee tamit dañuy fàtte fàttelu seen xel dina ñëwaat ne yaa problème am na benn feebar bu fi nekk muy maladie génétique bi gën a mag si àdduna bi Sénégal 10 pour cent la si am 10 pour cent wu population Sénégal ñaata la 2 millions 400 ñooñu kon war nañ leen bàyyi xel xool lan yan coono la ñuy jànkonteel. Mhm. parce que tey 10 pour cent wu malade soo si boolee seen famille presque je crois que ne Sénégal bi yëpp lay concerné. Mhm. parce que minimum famille bu nekk dina am trois personnes kooku soo ko jëlee multiplier tu kooku estimation rek la léegi nag ñun ñi nga xamante ne au niveau de l' association ñun suñu rôle mooy ñu sensibiliser. Mhm. léegi ñun duñ fi toog di xaar naan dañuy xaar journée mondiale. waaw merci beaucoup bëccëgu 19 bi wala journée africaine. mais ñun tout le temps ñoo ngi sur le terrain ba si barki Dembo Ndiaye ñoo ngi woon Thiès. Mhm. di sensibiliser avant Covid bi ñoo woon si dans les établissements. ak suñuy partenaire di def ay dépistage comme ça ñu détecté ñi nga xamante ne tey am nañ drépanocytaire ñu jéem leen orienté loolu déjà acquis la parce que bu njëkk bu da nga daan yor sa malade doo xam d'ailleurs lu ko jot léegi tey soo ko teelee détecté orienté ko kooku am na chance au moins même ak coût yu mu yu mu yu mu am yëpp au moins am na xam na fu mu jëm pour faju mm-hmm. loolu kon acquis association bi nag looloy rôlam mm-hmm. mooy seet fépp foo xamante ne information bi àggew fa association bi jël dàllam dox fa àgg fa pour jéem a sensibiliser jéem a yee jéem a expliquer jéem a association bi loolu moo ko tax a jóg mm-hmm. donc ne nag euh, la boo xamante ne chaque jour ñoo ngi seet nu ngi koy gën a améliorer parce que tamit euh, problème boo demee sur le terrain di nga gis ay problème yoo xamante ne da foog ne lii amul si àdduna bi mais foog ngay dem di gën a xam loolu yëpp suñ ko boolee di ko dagale ñoo ñoo ngi seet nañ nañu waxtaanee pour affaire yi gën a yomb si malaat yëpp wax nga ko léegi ci Covid bi doon ngeen amal ay séance de de de de dépistage ci ci moment Covid bi naka ngeen doon doon doon organiser wu d'autant plus que dañu waroon ay dañu waxoon ay respect de mesures barrières donc mu nekkoon loo xamante ne certainement dépistage wala sensibilisation bi du woon quelque chose de facile à votre niveau bien sûr. non. avant Covid bi lañ dem def dépistage yi quoi si biir Covid bi yëpp ba ñëpp ñoo bokk règle yi moom pour waa pour ñëpp pour pour c'était pour tout le monde loolu ñun ñëpp ñoo si bokk yem. Mm-hmm. mu nekkoon lu compliqué d'ailleurs sax en tant que drépanocytaires euh, mm-hmm. ils étaient trop exposés. Mm-hmm. gars yi du ñu woon nangu sax euh, ñu def yenn déplacement yi. te ba indi xawoon na indi gàllankoor ba nga xamante ne yenn malaat yi nangootuñu woon dem ci seen euh, rendez-vous mu nekkoon euh, benn problème boo xamante ne métti woon na mais léegi ah léegi nouveau moyen de communication yi hmm. nañu ay groupe WhatsApp pour mën a sensibiliser kon mu nekkoon ay relais yoo xamante ne ñi nga xamante ne war nañ dem euh, consultation ñu wax ak ñoom waxtaan ak ñoom ba delloo si seen mhm. pour ñu dem doon que nombre bi fa daan nekk. Mhm. nekkatu fa. Mhm. parce moom je crois que ne ñëpp ko yëgandoo. mais ci biir Covid bi moom ni ko ñëpp a dundee ñun lañ ko dundee rek. Mhm. waaw. Mhm. ngeen di amal ay campagne de sensibilisation moo xam ci dakaar ak euh, Sénégal ak ko wër mais tamit euh, bokk na si seen i plan d'action ngeen di def ay dépistage au milieu euh, donc au milieu scolaire avec les les les enfants ak tout temps yi ñu bëggoon xam foofu comment ça se ndax da ngeen di liggéey en partenariat avec ay ONG ba tey wala maîtres yi ngeen di fekk ci. ngeen di ñëw en appoint naka la seen campagne de dépistage au niveau des des des des des écoles euh, di di amalee wa amee. waaw waaw bi si établissement yi comme euh, ni ma la ko waxee sànq rek ak euh, suñu partenaire. fu mhm. mel ni Monaco. ñooñu am na ay budget yoo xamante ne dégagé woon nañ ak tamit ñu ne sur fond propre. sur seet école yi nga xamante ne soxla nañ ko ndax des fois nga gis benn école benn drépanocytaire nekk fa ñi nga xamante ne ñoo koy jàngal duñu comprendre mm-hmm. léegi foofu ñun suñu solicité dañuy ñëw soit ñu defal leen dépistage parce que loo xamante ne dañ ko siy def la plupart ñoom ñoo koy soxla parce que occasion la ñoom it pour ñoom ñu xam ñu nit ñu mën a tamit waxtaan ak ñoom wax leen képp koo xamante ne malade drépanocytaire la lu mu gën a soxla ak des fois yenn absence yi lu koy waral parce que ki nga xam ne drépanocytaire la day faral di. ngeen euh, voilà merci beaucoup voilà. kon mu nekk ay mbir yoo xamante ne ñun daf ñuy dañ daf ñuy neex ñu koy def. Hmm. parce que si biir association ça fait l'occasion moo waxaale ko amoon na fi benn arrêté bu ñuy wax arrêté Iba Der Thiam. Hmm. tey association bi moo ko dépoussiéré arrêté boobu presque dafa meloon ne existé wul te bi mu existé yàgg na c'est au temps de Iba Der di ñaan yàlla mu yërëm ko mu defoon ay yenn avantage si drépanocytaires yi kon tey dañuy absenté day bari ndax dañuy feebar programme scolaire bi duñ koy matale ñu am benn avantage bu ndaw bi ñu defaloon muy redouble multiple mooy mën nga di redoubler saa su ne parce que koo xamante ne du jàng année scolaire bi yëpp. kon kooku mënul terminer programme mu nekk avantage boo xam ne professeur Iba Der Thiam moo ko fi kii woon moo ko fi dugaloon amoon tamit euh, au niveau de de l'université tamit ñu favoriser leen ci ay chambre pour si ay ay bourse tamit mm-hmm. yooyu tamit xam nga mu nekkoon ay mbir yoo xamante ne ba léegi des na nag mm-hmm. parce que yéen a ma gën a xam ak complication yi am dans les universités de gauche à droite c'est pas facile mais tamit lépp loo xamante ne ñun tamit euh, suñu liggéey la si côté boobu tamit ah ñi nga xamante ne mën nañ leen si laaj ndimbal dinañ ko si def mais euh, association moom au niveau scolaire moom liggéey boobu lay lay lay faral di def. Mhm. waaw ndax ndax ndax yomb na ci ci ci fànn woowu. au yomb na yomb mhm. parce que ñëpp bokkuñu ni ñuy xalaatee ñëpp bokkuñu ni ñuy gisee. Mhm. c'est tamit des ñun Sénégal dafa am benn problème des fois nga gis kuy wax si loo xamante ne maîtriser wu ko. du domaine am kon léegi day nekk pro pro problème boo xamante ne. problème si problème. waaw merci beaucoup. léegi nag bu boobaa yow da ngay dawal compréhension rek hmm. euh, après jéem a orienté nit ki ba mu am information bi gën a baax comme ça moom si boppam suba. ñu orienté waat keneen koo xamante ne comme moom nu mu dem xalaatee noonu lay dem xalaatee. Mm-hmm. moo tax établissement yi li tax suñ fay dem dañuy kontaan parce que d'ailleurs ñi nga xamante ne ñoom ñooy enseignants yi di tamit euh, ay euh, directeurs yi recteurs yi kii kii principal yi ñoom affaire boobu da leen arrangé ndax ñoom day tax ñoom tamit ñu gën a xam lan mooy drépanocytaire mm-hmm. drépanocytose du moins comme ça ñoom ñi nga xam seen malade yi na xam ne c'est des malades drépanocytaires ñoom it ñu xam euh, ban comportement lañ war a am ak ñoom. Mm-hmm. moo tax euh, association bi chaque day am contentement di liggéey ak euh, établissement yi. Mm-hmm. justement euh, balaa ñuy jëm ci volet sociale bi dañuy des ba léegi ci li nga xamante ne moom moo di association bi ngeen créé ko ci atum 2003 euh, tey ji 2003 2021 euh, amaana ma lu bëri jaar na fi sax ba ñu doon taxaw boo ñu doon defal benn xayma wala benn bilan lan nga ñu ci mën a wax ci jéego yi association bi def ak tamit manquement bu dee manquement am na laata ñuy jàll ci beneen pàcc bi. bon association bi mënuma wax ne manquement amu si. mais mhm. mënuma wax ne tamit manque naa manquement am na si au contraire association bi dañ leen war a féliciter tey suñu toogee ba am unité boo xamante ne c'est uniquement pour les drépanocytaires mu nekk Albert Royer kooku avant avantage association xeex xeex la bu association bi xeex hmm. ak ay partenaire am mënuñu toog fii di lim ay tur dina si woon mais xanaa si waaw ñu lim ku mel ni professeur Diagne rek mu yóbbaale ñëpp géew hmm. ku mel ni Magay Ndiaye muy président association mu yóbbaale ñëpp géew kooku avancé la nga ñëw au niveau du centre euh, national de transfusion sanguin tey soo nee dina panus terre rek dina panus tous rek sa dina nekk si centre bi kon ñoo ñëpp adulte yëpp ñu leen di orienté foofu ñu fay fajo mieux tey ñoo ngi def dépistage néonatal au niveau de Saint-Louis mu nekk projet boo xamante ne professeur Diagne moo ko initié ñoo ngi wax ne ñoo ngi koy waajal fii si Albert kon yooyu ay avantage la yoo xamante ne ay acquis la yoo xamante ne tey association bi xeexam dévouement am engagement am ak xam tamit euh, coono yi malade yi di daj ñu seet ñoom nan la ñu mën a def ba coono yooyu wàññeeku kon association boobu kon c'est nag ñun baar bi suñ ko yóbbu mooy tax chaque fois lépp lu ñu def dañ koy dañuy jàpp ne defuñu dara ndax li ñuy xaar si kanam moo moo moo moo raw moo moo raw fuuf ndax feebar boo xamante ne complication yi suñ duggee si volet social bi dinañ ci gën a a xuus euh, lu laaj dafa bari coût bi dafa bari complication yoo xamante ne chaque jour bu ñëw a beneen bi ñëwaat du bokk kon kooku seen doo taxaw rek ne def nga dara mais tamit euh, yoon bi ñu romb guddoon na tamit woon na trop Euh, justement Souleymane Diop dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom moo di volo sociale bi wax nga ko ci sa biir wax drépano nekk na moo xam a AS bi moo xam es bi nekk na feebar boo xamante ne metti na lool même si ñu bëri ci askan bi xamee wuñ ko noonu te jii dañu buggoon rek xam seen prise en charge comment est-ce que sa space passe ñi nga xamante ne yéen a am jàngoro boobu. waaw prise en charge soo ko waxee dafay mel ni prise en charge dafa am. Mhm. prise en charge amut ñoo ngi si di si xeex pour mu am mais prise en charge bi fa mooy parents yi seen bopp ñooy jël seen doom en charge boobu prise en charge moo fi mhm. mu nekk euh, lu kuubu mag ndax ñun defuñu ay études yi ñoom si nga xamante ne ñooy c'est des c'est des décideurs politiques mhm. ñoo defoon études yi ay deux deux mille six euh, su juumul si sama calcul ñu ne le coût s'élève à cinq cent mille par malade parce que malaad bi lu muy soxla dafa bari consultation am garab ay garabam yenn hospitalisation yenn te te bu amul complication lañ ko estimer à cinq cent mille francs mhm. nga imaginer tey benn famille bu am ñaari drépanocytaire wala ñett wala ba ñeent kooku xam nga ne métti na si famille yi nga xamante ne benn drépanocytaire rek métti na waxtu ma la famille bu am deux ba trois ba quatre mu nekk ay complications yu doy waar. yoo xamante ne lépp loo si wax li ngay bàyyi je crois mooy ëpp. Euh, su ma la déggee bu baax amu leen subvention bu fekkente ne médicament yi lu mu munti munti cher wéyjur yi moo xam pap yaay wala ay frère ñoom ñooy manko ngir mën a jënd garab yi ngir mën a euh, wàññi métit bi nit ki di dund. waaw man ba bi may ñëw ni si émission bi yëgaguma ne subvention si garab yi moom yëgaguma ko. ndax dëgg yàlla subvention si analyse yi yëguguma ko subvention sax si ticket hospitalisation yi sax yëguguma ko ticket yi cher na tey ticket yi tey soo pour pour consultation il te faut cinq mille francs bon ñoo ngi dem créer nag euh, fu mel ni centre transfusion sanguine di ñu deen wax euh, les cartes jaunes nga xamante ne ticket bi da nga koy jël à deux mille cinq cent tey yow journaliste nga mën nga dem defi sa enquête au niveau de du centre du centre transfusion sanguin peut-être di nga xam exactement ñaata nit ñoo fa yor carte mhm. kooku je crois que ma si aventuré wu. Mhm. sa dama lay nga def liggéey boobu noonu. Mhm. gën a gën a liggéey bi am loo xamante ne tey ngeen seen bopp sax soo leen ko defee ñun da ngeen ñuy dimbali def yenn enquêtes yu xool def ay investigation di ngeen xam ne malaat yi coono yi ñuy jonkonteel ak euh, parents malaat yi na trop tey fu mel ni Albert Royer tey soo leen fa demoon ngeen doxantu fa ngeen laaj parent malaat yi ngeen xool di ngeen xam ne affaire yi metti na metti na trop avantage bi am rek mooy tey sa doom su feebaree di nga xam fan ngay dem pour faj ko si affaire drépanocytaire loolu mooy loolu mooy avantage bi loolu duñ ko du du du loo xamante ne dañ koy xeeb ndax nekku fi woon amu fi woon kon su fi nekkee tamit euh, du day nekk loo xamante ne dañ koy rafetlu. Mm-hmm. wax nga ko léegi eh, ci sa biir wax hospitalisation certainement benn pàcc la mais lu jëm ci seeni médicament ah, kon euh, ma jàpp ne njëg bi tamit euh, c'est pas donné. du tout njëg bu gën ndaw si si si si si médicament yi mille huit cent la mille huit cent tey. defar na ndekki benn petite famille. Uh-huh. bu ko buñ ko buñ ko xeeb. Uh-huh. kooku kooku te tout le temps yaa ngi say say say say say garab am na si ñoo xamante ne fu foo leen fekk ñoo ngi seen sac da ngay naan mini pharmacie ambulatoire dégg moom la ñuy yor. kon mu nekk ay mbir te loolu médicament yi mooy li si gën a ndaw. Uh-huh. mooy li si gën a ndaw tey soo bëggee def benn bilan tey li ngay dépenser pour def bilan boobu c'est extraordinaire dafa dafa dafa dafa dafa dafa jéggi dayoo. wax naa la tey liñ ko estimé c'est à cinq cent mille francs loolu nekkul malaat yi ñoom ñoo ñoo dem def ay études yi nga xamante ne ñoom ñooy experts si domaine boobu ñoom ñoo dem def lu ay études xool coût bi te loolu en envers les années 2006 tey chiffre bi war na mën a changé fii lañ barki Demba Ndiaye yéen a ngi dégg ku médicament yi dafa nu mu nu mu nu mu yokkoo coût hospitalisation yi tamit c'est la même chose kon. socialement ça reste beaucoup de choses à améliorer mhm. voilà mhm. Euh, socialement ça reste beaucoup de choses à améliorer et kon su ma la déggee rek seen association bi euh, du ngeen liggéey ak euh, ministre de de la santé ak de l'action sociale bu fekkente ne am na partenariat bu leen liyee et partenariat boobu ça porte sur quoi bu fekkee am na bien sûr. non ministre de la santé partenariat boo xamante bi ñu liyee mooy il est le ministre de la santé. kooku mu neex mu naqari sur son tutelle la ñuy exercer. Mm-hmm. parce que moom mooy ministre de la santé. képp koo xamante ne da nga am problème bu wérgu yaram ba pare nga gis ne niñ lay fajee wala nu affaire yi di doxee neexu la soo amee fooy wax ñoom ngay wax parce que ñoom la ñu jox li nga xamante ne moom lañuy yaakaar ne ñoom suñ defee ñun li ñu li ñu dal wala bépp malade. dina avancer suñu gisee lu baax dañuy taxaw ne ministre bi jërëjëf li nga def ni baax na baax na suñu gisee loo xamante ne gis nañ ne bëggoon nañ ko te àgguñ fa tamit dinañ taxaw ne àgguñ foofu mais franchement man ministre de la santé man sentiruma ko si lutte contre la drépanocytose mhm. je ne le sens pas keneen ku ko sentir nag du ma refuser nga taxaw ne sentir nga ko. Mhm. waaw kooku amul am gisuma si inconvénient quoi. Mhm. ku gis ne lu ministre bi di def euh, tout est tout est mais nga ñëw nga taxaw ne c'est ok mais man euh, je ne vois pas que ne les choses. Euh, marche voilà mhm. c'est ça. d'accord euh, lan nga jàpp mu jur loolu ndax euh, drépano feebar la mais dinañ farataal di déglu ay lutte contre le paludisme lutte contre euh, le sida la gratuité par rapport ak ay dialyse entre autres tey jii lan nga jàpp ne mu jur ne suñu autorités yi osons le dire certainement même bu ñuy impliqué wu ci jàngoro bi di drépanocytose seen implication bi desna d'autant plus que. prise en charge wala subvention moom euh, xel xalaatugu ko jusqu'au moment où on parle bien sûr waaw xam nga tey ñun ñu toog fii di ŋàññ wala di wax loo xamante ne ministre de la santé ñu gis nañ ne da ko waroon def te defu ko ñun loolu amuñu amaluñu kii lu ñu amal njëriñ mooy c'est une association de malades du muy te mën nga après mën nga dem seet yeneen association de maladies ah. parce que bari na fi yàlla les maladies chroniques tey ñoo ñoo gën a souffrir si si si ay complications yoo xamante ne bu nekkul woon ni ñu organiser woo catastrophe totale kon mu nekk ay fait yoo xamante ne jarul ngay jàng ba yëy. kayit waaw ba pour xam ne lii ñi ñoo ngi laaj te daf soo nee des na mooy daf fi ne dara dafee newul. Mm-hmm. soo des na mooy am na lu fi ne mais dara dafee nekkul. Mm-hmm. ministre de la santé nag peut-être liñ ko jox. moo bari ba nga xamante ne dafa fees si si si si si si boppam ba dootul xamati fan mooy lan la war a def lan mooy priorité ji nga jamono di si si deux ans yi un an yi soo waxee lan lañ lay wax Covid lañ lay wax mais avant Covid am na ay feebar yoo xam ne ñoo fi jiitu Covid junni yoon te kenn réglé wul problème problème te problème Covid bi bu automatiquement ñu débouché. deux cent nangam milliards pour rien que pour Covid bi mais tey suñ ko defoon si yenn maladie yi tey fu mel ku lu mel ni drépano mais ñu ubbi yow imagine toi un drépanocytaire di jege Tamba pour ñëw faju si Dakar ndax loolu avancement la un drépanocytaire di jóge Kolda pour ñoom faju si Dakar ndax loolu avancement la xam nga yooyu c'est des trucs yoo xamante ne ku ko dundul mënu mënu mënu mënoo xam mm-hmm. loolu ku ko minimiser mooy yow xamoo te yooyu ay fee la yoo xamante ne moo moo fi. Mm-hmm. du lu ñu inventé soo jógee journaliste nga nga dem def sa investigation di nga gis waxuma la benn mais soo moytuwul après dangay naan qu'est-ce qui se passe problème bi foofu foofu foofu la nekk. Mm-hmm. affaire yi ñun laajuñu gratuité mënul nekk. parce que am na yeneen maladie yu fi nekk ñoom it soxla ku leen jël en charge mu bari ay maladie chronique yu bari yoo xamante ne soxla nañ ku leen jël en charge mais au moins mu am ay avantages yoo xamante ne ki nga xamante ne tout le temps moo feebar bi ñoo dëkk ñooy dox da war a seet du dalal xelam ba nga xamante ne moom si boppam sax tey su daan def dix jours di tombe crise léegi mu mën a def benn vingt à trente jours door door crise mais koo xamante ne ay crise à répétition yoo xamante ne lan moo koy faral di kii mooy chaque fois yaa ngi ragal a feebar na xam nga ne soo feebaree la siy fekk complication yi la siy fekk mais am na si ñoo xamante ne balaa ñuy dem hôpital fekk jeex na les moyens ne suivent pas. les ça loolu ay problème la yoo xamante ne liñ si mën a wax kenn xamul nu mu doy. Mm-hmm. et au même moment yenn saa yi dañuy xaw a dañuy prôné li ñuy la santé pour tous alors que équilibre bi des na. la santé pour tous euh, bu dee slogan la slogan bu rafet la mais man je ne le mm-hmm. franchement. waaw mhm. ah, côté boobu moom pour vous dire vrai la santé pour tous moom man sentiruma ko quoi xaw peut-être nag man maa def xamul définition la santé pour tous mooy lan quoi mhm. voilà. Euh, ngeen yor euh, benn association euh, am ay partenariat moo xam ci Sénégal ak ci bitim réew mais tey jii ndax ci seen association bi des fois du ngeen di farataal di jànkonteel ay nit yoo xamante ne dañoo adhéré mais dañ dañuy dem ba ci biir donc du ñu am assez de moyens ba ñu mën a ba ñu génnee seen bopp ci association bi waaw en fait association bi soo waxee affaire moyen day mel ni association bi day laaj xaalis non non de la au contraire association bi daf fi nekk pour dimbaliwaate waate bi nag du ay xaalis bu muy yëkkati di la ko jox mais au moins ndax tey ku mel ni ki nga xamante ni par association bi dafa am benn chance boo xam ne daka am mooy Maguette Ndiaye moom moo ngi si centre transfusion sanguine yàlla dogal na fa lay liggéeyee. Mm-hmm. kon léegi moom tout temps. moom c'est automatique soo duggee biir centre moom noo def mu seet nan lay def pour au moins affaire su matalewul sax mu muy complété kooku ak i moom it ak connaissance am de gauche à droite mu mu mu seet nan la ñuy lijjantee pro yenn problème yi nga xam ne c'est des problèmes minimes mm. mais am na problème majeur yoo xamante ne association bi mënu ko régler c'est impossible. Euh, problème majeur yu ci mel ni. no tey imagine toi tey koo xamante ne tey dañ ko war a defal euh, opération mais kooku du du tiisu domaine association bi mm-hmm. nga war a dem ba nga xamante ne tey da nga war a def euh, ñu warul a utal protège du domaine association bi mais tewul association bi du la seetaan dina jéem a seet nan lay seete utee ay partenaires de gauche à droite pour loolu mën a am aki i mais c'est des coups coups yu metti la. waaw mais absolument mhm. Mhm. absolument si si seen i ndodd lay lay lay lay lay dal. Mhm. moo tax euh, des fois man dama ne ñi nga xamante ne c'est des décideurs politique dañu comprendrewul exactement lan moo xew sur le terrain. parce que suñu amoon ay relais yoo xamante ne suñu ñëwee dinañ leen wax li xew peut-être dina woon tane bon ñoo ngi jéem a seet ni ñuy liggéeyee ak bàjjenu gox yi parce que ñoom c'est des relais communautaires ñu jéem a seet sensibilisation bi nuñ koy gën a élargir peut-être bés dina ñëw ñoom ñu déggu ñu dëgg déglu ñu dégg mën a jël yenn décision yu baax yi. Mm-hmm. Euh, da jàpp ne dégg-dégg bi dafa am fu mu fu mu tout à mhm. dégg-dégg bi moo des parce que am na loo ki nga xamante ne c'est un décideur politique mënul nekk fépp en même temps mënul nekk c'est impossible loolu ko comprendre nañ ko mhm. mais tamit ay collaborateur am tamit dañ war a tamit euh, ñëw li nga xamante ne loolu lañ leen sant loolu lañ leen sas ñoom tamit ñu xar si seen tànku tubéy ba nga xamante ne ñooñu ñun dinañ sentir ne ñii liñ leen sant ni yitteel na leen bu boobaa yow si sa bopp yow mi liggéey ñoom da ngay am assurance mais malheureusement c'est pas le cas. Uh-huh. tey ñun suñuy partenaire presque mën nañ wax ne suñuy médecin lañu ñoom ñooy suñuy partenaire ndax ñoom dinañ leen gis des fois nga gis médecin boo xamante ne nit ñëw consultation après mu yëkkati xaalisam may ko mu paas mu ñibbi gis nañ ko fii bu dul benn di ñaar uh-huh. dem nañ ba léegi diggante ay ay xarit lañu parce que tout le temps yow ku ngay ñëw si moom tout le temps dana instant nekkul garab moo lay faj wax ju neex moo lay faj waaw moo lay bu lay waxtaanal di la defalal loolu moo lay faj loolu ngay soxla si moom mhm. des fois nga gis ku décrocher téléphone am moo nekk consultation bu dee dañu am benn stagiaire ku bees xelam du dal donte ne kooku mën na liggéeyam mhm. mais xelam du dal mais kee dafa am benn plus bu bu muy apporté mooy waxtaan bi saafonte bi kooku da ngay dem ba yow soo ko gisee rek yow tu es kon nga xam ne affaire yi c'est pas compliqué unité décideur politique yi loolu rek lañ leen demandé ñu indil ñu assurance boo xamante ne au moins yaakaar loo xamante ne à dina nekk lu neex si ñëpp daal. Mhm. Euh, sànq yaa ngi koy wax ci sa biiru wax euh, war a faju jógee Ziguinchor wala Kolda wala Fatick pour ñëw Dakar déjà trajet boobu rek dafa metti ndax loolu de manière générale jàppaloo ne ci euh, ñu ci côté wér gu yaram bi mën nañ ko méngale ak dell dellu ginnaaw ndax euh, bu ñu demee ba nga bëgg a feju ak euh, jàngoro bu munti nekk waroon nañu muñ am assez de structure hospitalière ba doo jógee donc Ziguinchor exemple la rek pour ñëw dakaar pour amal ay soins yenn saay sax nga ñëw foo xamante ne amoo fa ay wéyjur toltolaan dala fee daal di fekk. waaw si côté boobu tamit euh, dañu fay remercier waat ku mel ni le professeur Diagne. Diagne ndax. am ay amélioration yu si jot a am mm-hmm. ndax jël nañu ay personnel de santé formé leen si mm. yenn nga xamante ne les premiers soins tey su la su su soo amee crise premiers soin yi mu am benn guide mm-hmm. boo xamante ne soo ko consulter rek euh, di nga xam yow li nga war a njëkk a def mais sante ne suffit pas mm-hmm. ndax drépano euh, ku ko xeeb da nga xamul lan mooy drépano kooku soo demee ki nga xamante ne doom dafa fanaane jooy guddi gi yëpp nelawul kër gi kenn nelawul mu yor metit bu tar kooku soo ko xeebalee drépano dina wax ak yow neneen bon loolu ay avantage la yoo xamante ne gis nañ amélioration la yoo xamante ne gis nañ ko parce tamit day baax tamit ñu saluer ko su souligner ko mm-hmm. pour man ba léegi na te yi may du drépano rek am na si yu maladie yu bari yoo xamante ne capture Dakar lañ lay wax te pour man Sénégal fu mu toll nii war na mën a weesu foofu quoi. Euh, Drépano euh, ak euh, Covid 19 c'est vrai que tey jii mesure barrière mesure barrière yu bëri même si les gens ñu ngi koy respecté mais lu bëri ci askan wi xam naa ne sax du ma ne bàyyeeku nañu mais jëlatuñ ko comme au premier degré comme au début ndax tey di nga leen di farataal di di nit ñi ci li nga xamante ne moom moo di la maladie elle est toujours là euh, ñun dañu nekk ay personnes yoo xamante ne dañu exposé ci seen association bi ndax dingeen di farataal di continuer di sensibiliser informe sensibiliser sur à ce que jàngoro bi elle est toujours la te ñun aussi dañu exposé. mais tout à fait loolu loolu je crois que ne aajowul woon sax euh, nit ñi di ñu ko wax. pour ñu mhm. xam loolu quoi parce que le drépanocytaire moom il est toujours exposé à des infections. moo tax euh, xaaruñu ba Covid ñëw pour loolu ñu si veillé Covid bi nag bu ñu kon tey virus la boo xamante ne bon. moo am bës jamono yi si virus yëpp kon dañ dañ dañ ciy gën a bàyyi bàyyi xel kooku ñoo ngi ci bu baax a baax foofu soof man mi fu may dof maa ngi sama masque maa ngi sama gel tout et tout te ñu te loolu di waru nekk drépanocytaires yi rek pour man teel na quoi pour nit ñi baisser seen garde si côté mhm. boobu noonu parce que ñun ñëpp on est exposé. Mhm. boobu moom je ne. comme teel nañ ko comprendre. teel mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ngeen ko comprendre euh, dafa mel ni lu ñu curaloon ci waxtu wi daanaka yegg nañ ci bu fekkente ne am nga euh, ay ay doléance euh, loo xamante ne bëggoon nga ñu waxtaanee ko ci ci ci ci ci ci jotuñu ca yegg lan ngay wax tey au niveau de nos autorités par rapport ak jàngoro bi. waaw d'abord li ñuy wax mooy li ñu fi wax commencement ba fin rek lépp lu ñu wax rek dina am lu ñu. bàyyi gis nga ne yoruma benn fooy. Mhm. noonu laa dem waxee kon ça veut dire que li may wax euh, loo xamante ne kii naa ko yàgg naa ko dund la pour ne pas dire maîtriser naa ko mais di wax ne ñoom autorités yi ñoom ñoo jaboote ñëpp ñu gën si bàyyi xel gën a farlu si liggéey yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen collaborateur ñu leen di xool ndax tamit seen liggéey ñoo ngi koy defee nu mu waree. à tous les niveaux loolu nag je crois que ne du côté santé rek côté fépp la foo xamante ne ci Sénégal mm-hmm. ku ñu jiital kooku yow responsabilité bi ci yow la nekk kon kooku yow yaa war a seet nan ngay def ba affaire yi war a mën a dox kooku Sénégal su avancé ñun ñëpp la avancé la fi tukki tamit da ngay tôt tard fii ngay bëgg a ñëwaat ndax fii nga xam kon di ñaan yàlla gars yi gën a yàlla gën a ubbi seen xel ba nga xamante ne lépp warloo naax ñoom warloo naax ñun uh, képp ñu yor santé bi wala ñu yor leneen beneen liggéey ñu warloo ñoom ak population bi rek ñu def ko si am am anam bi nga xamante ne moom la si population bi di yëgee boppam. Mhm. Euh, sànq yaa ngi koy wax njëgu garab bi mille huit cent euh, certainement benn chiffre la rek bu ñu def estime mooy bu gën a waa benn benn benn petite euh, estimation la rek ndax sàkkuwu leen ñu xoolaat njëgu garab yi même su fekkente ne du bari ñu xool luñ koy def waxuñu amu leen prise en charge mais tey ndax jotul suñu autorité yi gën a farlu ci lépp lu jëm ci wàllu hospitalisation. wala wàllu coût des médicaments. non xam nga tey am na mutuelle de santé yu gars yi teg mutuelle de santé yi tenir ñu compte avec les maladies chroniques problème la mutuelle de santé lu bien la lu lu extraordinaire la bu fekkee ne woon doxale nañ ko nañ ko war a doxalee parce de santé man ni ma ko comprendre mooy lan natta la da ngeen di nattal kenn da ngeen yéen ñëpp di nattal nit pour ñu faj ko. Mm-hmm. par exemple ñëpp doo leen feebarandoo. Mhm. man noonu laa comprendre mutuelle de santé. Mhm. kon ça veut dire de santé bi su yoon non seulement ñëpp dinañ participer mais ñëpp tamit dinañ faju loolu rek la amul leneen. Mhm. léegi nag ndax niñ koy defee baax naam baaxul bon kooku l'avenir nous dira ça mais mutuelle de santé bi moom tenir en compte les les maladies chroniques ah. couverture maladie universelle. waaw waaw seen bopp. du tout. malgré propagande ci def. ak non du tout du tout du tout du tout du tout. kooku moom. Euh, gisoogu gisoo gisooguñu loo xamante ne ah peut-être xëy na suñu jegee ci émission bi ñoom dinañ xam ne mutuelle de santé bi ñi ko gën a war a gën a moom sax mooy les maladi chroniques. Mm-hmm. comme sax gars yi seet nan la ñuy modifier mbir yi. Mm-hmm. ba nga xamante ne par pour man mutuelle de santé idée bu bien la. Mm-hmm. mais seulement niñ ko war a doxalee moom moom moom moom moo demeewul noonu mais am na nuñ koy defee ñëpp si ji seen bopp te ñëpp mën nañ si bopp te te bu boobaa sax yow di nga participer mais imagine toi yow tu payes 1000 francs chaque mois c'est 12000 mais 12000 xam nga fajul kenn. mais il y a quatorze millions de Sénégalais yu cotiser douze mille par par an. par an mais quatorze millions de Sénégalais feebaru ndawuñu. déedéet ah. trop te am ñuy cotiser yoo xamante ne sax certainement euh, duñ duñ ci duñ ci am soxla. mais jeex na dañuy fàttal ñeneen. ma ne bu boobaa ñëppay faju au contraire xaalis buy del bu boobaa dañ koy def ay recherche si yeneen yi nga xamante ne tey suñu développement agagul foofu su côté santé. Mhm. jeex na mu jeex. man loolu euh, waxtaan wi am na solo lool waaye mu mel ni lu ñu cëraloon ci waxtu wi daanaka yegg nañ ci euh, euh, Souleymane Diop. bu fekkee am nga ci bëgg a dolliwaat rek ñu dem ci laata ñu tëj émission bi cette fois ci moom xam naa ce sera la bonne. <laughs> waaw d'accord xanaa di kontaan si invitation bi rek euh, di le remercier Fatou Dame la non. Fatou Baba ok di le remercier bu baax a baax euh, di am mbégte ak contentement si akay bi c'est magnifique. di ñaan yàlla rek lépp luñ fi wax euh, mu nekk njariñ pour ñëpp ñu seet euh, ndax dañu ñëw fii tey fii tribune la. Mhm. pour wax jafe-jafe wax tamit ak yi ñu seet li nga xamante ne jafe-jafe la ñu seet déwén suñu fi ñëwaatee ñu wax ne jafe-jafe yi de fii lañ waxoon mais avancé nañ ba lii yëpp dañ na di ñaan yàlla loolu am si ak yi tamit ñu seet nuñ koy gën a ñoŋalee ba nga xamante ne maladies yi chronique yëpp drépanocytaires yeeg yeneen maladies yëpp yàlla yombalal leen seen dund nga xamante ne côté santé bi franchement dootul nekk problème loolu daal mooy sama mot bu mujj. Mm-hmm. merci beaucoup. Mm-hmm. Euh, jërëjëf jaajëfal ko moom tamit bu baax a baax ci disponibilité bi waaye OFT bu mu bu mu bu mu manifester ah. moom Souleymane Diop ma fàttali ne moo nekkoon tey suñu gan ci émission bi di SOS santé Souleymane Diop nag nekk trésorier au niveau de l'association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose mbokk auditeurs yi yéen tamit jaajëfal naa leen bu baax a baax fàttali ne Fatou Baba Fall moom moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy moom moo nekkoon ci xarale bi beneen vendredi beneen émission ak euh, beneen invité jërë ngeen jëf ci déglu bi